maa ngi leen di nuyu seen tour ak seen sant te képp ku fi ñëw indi fi njàqare wala feebar lu mu mënti doon yal na ko yàlla saafara ci bés bi waaw yal na leen ko yàlla defal parce que man moom Lamine du ma wax ci moom du ma wax ci moom de parce que les gens ont tout dit cabakaay euh, kaay du ma du ma wax ci Lamine quoi mais je vais juste donner un ñëwal kaay kaay kaay non kaay kaay indi non kaay lawul amul problème ñëwal ça va man euh, du ma hmm. kii kii rakku Lamine la sama soxna la kii sama doom la tur bi Fatou Lamine la tudd yaayu lamin ak lamin donc man awma lu may wax waaw yàlla neen yàlla bindal tiyaaba yéen ñëpp damay sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant samay waajur ginnaaw loolu nag dama ne woon sax man ay paroles yi souvent duma ko jël bu ñu waxee rek damay kii daal bàyyi noonu rek waaye fii bu may bu may wax lamin sax dem na sama doom la ñoom ñëpp ñëpp xam nañ ni ma demee woon ak moom presse bi presque genn wàll presse bi yëpp man xam naa leen ndax Lamine bi ñuy ah, booba gu ñu sax dañuy def ay seen jàng yi ñoom ñëpp Lamine de dafa buggoon ay affaire invitation da leen daan woo ca kër ga bu ñu daje yooyu rek la bëggoon bu tayee semaine bii dina indi groupe beneen semaine bu weer dee mu indi beneen groupe bu ñëwee na ma toggal yàkkal ñu yendu fa ba berneel leen ñu dem presse bi genn wàll gi gën fii yëpp dama leen a xam ndax Lamine léegi nag kooku moom dem na dama koy ñaanal te xam naa ni ma nga moom moo nekk si dëgg xëy na man si li ne sax xaw ma ko mais moom leer na ma ni mi ngi si dëgg ndax ay ay qualité man maa ko jur mais ay qualité man mi di yaayam sax am na yu ma manqué mais moom yàlla defal na ko ko xëy na nag loolu cëram la yàlla. di kontaan lool di rafetlu lool seen teewaay fii di leen sant di leen gërëm ah parce que nit moom bu wootee euh, ay nit déplacé wu ñëw ñëw ñëw teewal ko te si kontaan lool. donc kontaan nañ loolu seen taxawaay gis nañ seen taxawaay depuis ba bi bi bi tiis gi dalee suñu kaw ba tey bàyyiwu leen boobu ba tey donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax euh, di rafetlu lu mu def bu baax a baax a baax a baax defe naa ni moom itam amuñu fayam parce que bi affaire bi amee ba tey defe naa ni avant boobu ba tey sax moom bàyyiwuñu ginnaaw benn yoon rawatina affaire bi am ba tey mu ñëw rendre ko hommage ku ne xam na ni ñoom ñaar seen diggante ni mu meloon ni mu woon ba tey moom mu ñëw bokk famille bi ndaxte yaakaar naa ni rakku rakku rakku rakku Amadou lay sëyal donc bu bu defee lii def na lu ko war donc ñu koy sant di ko gërëm encore une fois. waaw maa ngi woon maa ngi woon maa ngi doon suivre actualité maa ngi doon suivre donc ku ne kenn naatablewul bon journaliste boo xamante ne woon hors pair parce que defe naa ni doo ko dégg ci dara loo xamante ni lu ñàkk fayda la wala dara loo xamante ni luy sikkal journalisme la. toujours mi ngi woon ci luy doxal ak luy jëmale intérêt dëkk bi donc mu nekkoon référence nekkoon koo xamante ni royukaay la woon te daf ma daf ma daf ma soutenir bu baax a baax wan ma yoon bi defe naa ne bi may doog tàmbali mën naa ne presque plateforme yi ma am yëpp presque moom ko ubbil moom accompagner moom mu njëkk moom mu njëkk titreel euh, à la une moom mu njëkk defal lépp donc man tey bu ma yeggee ba fii mën naa ni grâce grâce a moom am joué na ci part de responsabilité bu mag a mag donc ma koy ñaanal fi mu fi mu mu fi mu tëdd yàlla yàlla xaare ko àjjana waaw ndaxte ñun de ñun de tiituw ñu benn yoon ci moom waaw am nañ yaakaar bu baax a baax ci moom. ça va man Rama laa tudd waaw man rakam laa waaw. moom j'ai pas les mots pense juste que kii bi rafet na et loolu rek laa si mën wax. Euh, moom comme on a dit rek c'était un un homme multidimensionnel moom lépp xam na ci sport euh, lépp lépp la xam lépp et puis en français il savait bien faire les choses man je le prends comme une référence en tout cas et voilà tout d'abord sant yàlla bu baax a baax a baax si événement bi nii li mu dajale li ay nit ñu tedd rek ñoo fi ñëw euh, ñi si jiituñu presse bi tey presse bee xewle waaye dañuy wax ne tey jii tamit euh, suñu frère d'arme moo xewle parce que Omar Chérif Ndaw ñoo demandoo armée euh, léegi su defee un livre bi nga xam te ne mu ci relate ay témoignages yu xaritam doomu ndeyam Amadou Lamine Mbaye man dam ci gisaat aussi à travers Amadou Lamine Mbaye témoignage yu man sama chef de section kinésithérapeute Euh, Bokar Thiam. Euh, c'est un drépanocytaire, SS. Mais il a retracé exactement la vie de Ahmed Bokar Thiam à travers Ahmed Lamine Bay. Donc, moi, mu une satisfaction pour nous. Donc, il a écrit ce livre pour rendre hommage à Ahmed Lamine Bay. Mais à travers cet hommage-là, nous nous sommes dit si hommage, nous rendre hommage encore à un autre gars qui, battu toute sa vie avec la vie avec la mort. exactement professeur Sow ni mu ko relatee noonu la parce que ñi nga xam te ne tout le temps ci souffrance la ñu nekk parce que avec déformation globule rouge yi toujours dana am demande d'oxygène bi nga xam ne day am tout le temps si ñi nga xam te ne ñoom am problème de si drépanocytose am Lamine xamuma ko mais à travers témoignage rek xam naa ko xam naa ko référence la woon digganteem ak sëñ Babacar moom lii dama ne woon mënut a ñàkk parce que gàmmu gi instant yi mi ngi ko daan fekk fu ne muy daw lu ne muy gëstu ci sëñ Babacar sëñ Babacar moom fi mu ko toll woon man xaw ma ko xamoon naa début bi mais bu doon finalement mu fin bi xaw ma woon bu dundaatoon du ma xam naka la fin bi di demee parce que yéeneem si sëñ Babacar moom moo ko xamoon dama ko daan wax sax petit petit lañ ko daan wax Amadou Lamine amal limite si ni ngay def nii si tarixa bi parce que lii ngay def wóorul mun nañ laa door gaañ la wala ñu rey la sax si lii tarixa boo ci nekkee dangay modere modéré mu ne ma yaay man ko ñii am nañ ay sët sëñ Babacar sëtam yaa ngi fi bari mais yow ni ngay agiré sëtam yi sax duñ ko def mu ne ma yaay bul ma wax ay sët sëñ Babacar bul ma wax ay doomam sama digganteeg sama sëriñ man xajalu ci kenn te kenn xamul maak moom nu ñu demee bàyyi ma ak sama digganteeg sama sëriñ egg woon na fa te dama doon ragal rek benn jour rek comme dëkk bi ni mu mel nii rek ñu indil ma mu koor tegal ma jaraloon na ko ko moom ku boo sëriñ sëriñam ak pikin la yemale woon fi mu dëkk doo tudd pikin doo tëdd sëñ Babacar loolu moom dafa tuuti amul njëriñ amul doole mais fitam moo ko ko daan may amoon na fitu engagé ko munti doon ci sëñ Babacar si bu bu eggale woon dundam lii Omar def ci moom tey dina def livre sëñ Babacar loolu lu ma leer la wante nag loolu la Omar sentir ba jafal ko ko mais nag lépp li may wax yëpp wax ji dama koy retourner si Omar parce que lu ñu ànd di nekk di nekk di nekk ba yàlla dogal digganteem ak sœur Lamine bi bi mu gaañoo mu ñëw dox tànk yu wóor ñu jox ko ko depuis loor ma nga ca kër ga mais jumelle yi ma ngay seet lu ñu manqué mi ngi seet ñu ñàkk mi ngi seet lu ñu bëgg man Omar xaw ma day mer moom it xaw ma nitu lan la parce que daal man jaaxal na ma benn façon laa ko gisee du mer du dugg sul yoonam newul nitu jàmm la am na njëriñ am na jàmm Omar moom dama koy bàyyeeg yàlla parce que lii mu def man mun ma koo def sama doom xam naa sentiment yi ñu am mais mun ma ko mun ma ko décrire mun ma ko bind mun ma ko wax si tele mun ma ko wax si rajo en plus nag waxuma la ak livre lii mu def nii maa ngi koy bàyyi yàlla doomam ji mu taawloo rakku lamin tuddum tuddee ma ko jël tur bi teg ci lamin maa ngi ñaan yàlla yàlla na xale bi toog ba bay teral baayam lu lu raw li ko li mu seqoon ak Lamine yàlla na ko turandoom bi defal barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Omar nit ku baax la mu nit ku baax la li ngeen koy gis nii man xam naa ko sama doom la yàgg na ca kër ga ci man la ne waaye zéro faute maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla taxaw daam nag daam moom beneen wax la daa mi yore leeral beneen wax la ndax mook Lamine nii lañ meloon comme ay jumeaux lu Lamine di def mi ngi sama kër bu Lamine dee marié ma nga ci kër ga bu Lamine dee ngénte mi ngi si kër gi bu ñëwee day tibb xaalis du jéem a calculer lu Lamine bëgg loolu la bëgg ba ci mariage am daf ko solol solol jabaram ba léegi bu julli jotee enveloppe bi day ñëw ci xale yi daam mënu ma ko fay maak papay Lamine ak ay sëram yàlla na ko yàlla fay liggéeyam bi yàlla na jëm ca kaw a kaw leeral li mu ci tuddee leeral yàlla na gën a leer ca kaw a kaw a kaw yàlla na ko yàlla defal yéen tamit gërëm naa leen sant naa leen yàlla na leen yàlla taxaw yàlla fay leen xawaay bi rafet na kontaan naa si yéen yàlla na leen yàlla fay ak ñi fi ñëw ñëpp xarit yeeg mbokk yeeg ak ñi ñu bëgg a ñëw te ñëwul maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp wasalaam